لو دهر النياتين asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Sénégal ñu ngi ñëw tey jii ci turu direction général bu Hizbut Tarqiyyah di leen jottali ay kàddu yoo xamante ne dafa jëm rek ci ak cant cant goo xam ne beraluñ ko kenn ñëpp lañ ko boole ginnaaw bi ñu bàyyi ko ci ziar bi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah mi ngi ko doon amal ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñi samedi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai deux mille vingt et un fukki fan ci weeru shawaal atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar di jiital nag ci cant gi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des Mourides di ko sant cant goo xamante ne amul fu mu yem ndax gàttandu nanu dalal nanu dimbali nanu te lim ñu defal xam nañ ne jëlale naa mboolem waa xisbu tarxiya góor ak jigéen mag ak ndaw jëlale naa waa réew mi waaye lislaam jëpp seen aajo mën na cee faju ndax ngërëm lu ñu toll am na ko ci suñu borom yàlla na ko fi yàlla yàggal li mu yéene ci toolub lislaam mu liggéey ko ak sagoom te nu ànd kook moom te làq ci ngërëmal sëñ tubaa ñoo ngi sant itam njabootug sëriñ tubaa gi muy bokki boppam ndax xam nañ ne ñoom li ñu ci dàqal ne ñun waa Hizbut Tarqiyyah mooy xam nañ ne Hizbut Tarqiyyah du alali kenn alali sëñ Tuubaa la te alali sëñ Tuubaa kon ñoom ñoo ci jiitu xam ngi ñu xam loolu ba jàppee ko seen alal nun bànneex la ci nun yokkute la ci ñun tawféex la ci ñun moo tax kon ñoom dañ leen di beral ak cant waroon na sax ci man mii euh, ziar bi kenn ku ci ne ak foo mën a ne lu mu sori sori man maa war a dikk ànd ak délégation yëgal la ziar bi waaye loolu xataayu ginnaaw koor gi ak wàccaayu bis bi demee na noo xamante ne ni niñ ko waroon defee sax ak matadi dina ci feeñ faw loolu nag nu leen koy jéggalu di leen yeesalaat di leen xamal ne lii seen alal la di baral itam sunu cant ki yor kàddu sëriñ bi Cheikh Mouhamadoul Bachir ndax taxawaayam ci sunu wet taxawaayam ci dongo yi taxawaayam ci yoon wi moom utalu ko noflaay du guddi du bëccëg yëngatoom ak dalam lépp sëriñ bi la ñoo ngi ko ci sant cant ko xam ne amul fu mu yam ginnaaw loolu itam njabootu sëriñ bi ñun xam nañ ne njabootu boppam gi kenn desut gis nañ niñ taxawee ci sunu wet gis nañ itam seen taxawaay ci wàllu sëriñ bi ak fi ñu ko féete kooku nag bu ñu tuddee sëriñ Moussa Nawel nga xam ne jëwriñam la dafa mel ni tuddaale na ñëpp dafa mel ni daaru mi nam kenn desut kon ñu leen di sant di leen gërëm euh, bis bi nag ndam liñ ci am ndam la loo xamante ne lislaama ko moom moo tax kon cant gi faw ñu beral tamit ak cant bokki jullit yi bokki lislaam am na ñoo xam ne sax Burkina Faso lañ jóge di ay bokki jullit sàmm kóllëre suñ diggante ñoom mu yàgg lool ñu dikk di ko dox si ci ziar bi ginnaaw loolu itam mbokk julliti këri diine yi ci biir Sénégal dafa mel ni fen ci biir réew mi fu ne ay gan jóge nañ fa te dara taxul leen woon jóg lu dul ziar bi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah mi ko doon def ci seen munta mooy lislaam genn njaboot la goo xam ne xaw ma fu mu fu fu mu ñàkk mokkee de waaye fii de xam nañ ne genn njaboot lañu loolu ñu ngi ciy sant bu wér bàyyiwuñu kenn ah ñëw nag ci cant goo xam ne dañ koy beral membre Hizbu Tarxiya euh, ku ne xam na ne sax Hizbu Tarxiya euh, li ñu gën a miin mooy soññante ndax dañ ñu daan faral di wax ne euh, santante am na bi ci ëpp solo te nekk suñu kanam mooy bis bu mujj ba ñu bëgg na kenn ku ci ne xam ne loo wàcc fii rek du doy moo tax foofu lañ bëgg bis bu ñu fa àggee buñ jàkkaarloo moom sunu sang bi nga xam ne moom lañ àndaloon di ko liggéeyal ñu ne ko radita hanna wa radina hanka wala nazalu bis di minka loolu moo doon sunu sunu mbébét moo tax li ëpp ci sunuy ndaje soññante la ñuy def waaye teewul nag jottali ak cant du mën a ñàkk ku dul sant nit ñi doo sant yàlla suñu borom kon ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay seen mobilisation ak tamit wane gu ngeen wañe ne wane ne xam ngeen ne naqari jamono bu liggéeyal sëñ Tuubaa taxawee amut raay bi bañ koy liggéey jëlee ko njaareem sëñ sëñ Mamadou Moustapha di ko di ko taxawu boobu crise 1929 la àdduna sëpp ci récession lañ nekkoon mooy ci ci jafe-jafe boo jëlee tey jii sëñ Fallou ba muy yëkkati jumaa ji di ko liggéey ba mu koy àggalee boobu Sénégal moomagul boppam nga jël tey jii bëgg ko sëñ Abdou Lahad di yokk wax na ne euh, ba may def lii de xam naa ne jamono mbay mi melul na mu war a mel waaye xol yu nangu moo gën mbay mu nangu loolu lépp mi ngi jàngal dongo yi ne conjoncture maanaam jamono nii la mel bu mu la tee liggéeyal sëñ Tuubaa ndax sëriñ bi boo ko jiitalee sa yitte rek sa yitte bopp la koy saafara yow doo doo xam sax fu muy bàyyi ko kon loolu moom ñu ngi leen ci sant yéen mboolem waa Hizbut Tarqiyyah biir réew mi ak bitim réew muy mag ñi muy ndaw ñi muy góor ñi muy jigéen ñi di beral cant nag jëwriñ ñi nga xam ne ñoom xam nañ ne jiite doo jiite ci ay wax da ngay jiite ci jëf ndax yoon wi du yoonu def leen da ngay jiitu ci jëf rek su ko defee ñu war a topp sa ginnaaw mun a topp sa ginnaaw loolu ñoo ngi ciy sant mboolem jëwriñu daara yi di tamit dikk rek ci cant goo xamante ne dañ koy beral waa Touba Touba waxuma rek kilifa yi waaye daayira yi bokki dongo yi dëkkandoo yi ak suñu mbokki bopp yëpp kenn desul ñu ànd am na ñoo xam ne seen wàccuwaay ñun xam nañ ne dañ leen dañoo war a bàyyi lépp gàttanu leen dalal leen waaye dafa mel ni sax bi ñu dikkee fekk kër gi mu fees du ñu du ñu fa xam nañ ne xajuñu fa waaye taxul ñu mel nii lu jàpp ne yeeyoo nañ leen biir jumaa ji am na ñu bëri ñoo xam ne fa lañ nekk toog di jàkkaarloo écran yi di teew teewlu waxi sëriñ bi seen xol sedd te it te taxut sax ñu mën a yëg ne agsi nañu loolu ñoo ngi leen di sant di ñaan sëriñ tubaab mi nga xam ne moo tax ñu def ko mu fay leen ngën ngi pay mu defal leen lu kawe seen njort tey ak ëllëg dalal seen xel ci lépp loo xam ne aajo la joo xam ne am nañ ko muy àdduna adduna aajoy àdduna ak aajoy àllaaxira loolu kon ñoo ngi leen koy beral di ñëw nag ci ñi nga xam ne it wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na matale na muy ñii tuddee commandement territorial ndax ab dëkk dafa mel ni bu fekkee dafa am lu ñu koy saytu ñooñu seen wàll da leen koy delloo ndax ñoo koy gën a man ci ñoom lay gën a mat sous préfet boo xoolee dafa taxaw muy sous préfet de Ndam dafa taxaw taxawaay bu rafet daal di jël chef de service yëpp def ak réunion ñi nga xam ne mooy jëwriñu Hizbut Tarqiyyah yi nga xam ne ñoo yoroon organisation bi ba nga xam ne dara sooxewul loolu ñu ngi leen ci sant cante goo xam ne amul fu mu yem moo xam muy police moo xam muy gendarmerie moo xam muy convoi bi wala jëmmi kër gi sécurité bi ñu ko gawee ak fexe ba yombal dikkuk sëriñ bi donte mbooloo mi ku ne xam na ne loolu suñ ko euh, saytuwul woon du yomb loolu ñu ngi leen ci sant waa sapeur pompier def nañ seen liggéey waa district sanitaire bi itam bàyyiwuñu dara fexe nañ ba def ay post avancé yoo xam ne loolu ak li mu laaj ci ay juntuwaay def nañ ko ba ñun jàmbatuñ dara sant nañ leen ci saahir ak ci baatin boo jëlee tamit service di d'hygiène jël nañ seen disposition lu jiitu bis bi ngir désinfecter barab yi ndax ay nit fu ñuy daje faw ñu fexe ba sécurité ci wàll googu desinfection da koy da koy yombal loolu kon ñoom def nañ seen liggéey ndox mi itam waa Ofor waa Sonatel ci wàllu li nga xam ne mooy liaison LS bi yombal liggéeyu euh, diffusion yi loolu ñu ngi leen ci sant Senelec taxaw nañ ci courant bi nga jël nag tamit mairie wu Touba ak mairie wu Mbacké ñoom dañu ñoo xam ne euh, maire yi ñoom waxuma sax taxawu gi waaye dañoo teew loolu kon kon yàlla rek suñu borom moo am seen pay yàlla na leen fay gën gi pay ginnaaw teew gi dañ ñoo jàppale loolu nag ñuy dellu si rek di leen sant tey xam le ne yamul ci ñoom am na ñoo xam ne dañ naan mbooloo mii dajalee dinaa fàggu ndox indi fa ay bonne volonté am ñoo xam ne dañoo yor seeni daayira Touba am ñoo xam ne dañoo yor seeni kër ñëw mettre ko à la disposition comité d'organisation bi ne gan ñi bu jarul ñuy xat-xatloo ci daara yi bu ñu dikkee sama kër ubbi naa bunt yëpp faggu naa ay togg lépp def naa ko su ma leen doon lim sax ñoom du leen neex ndax li leen gënal mooy ma lim leen ci biir membre Hizbut Tarqiyyah loolu kon ñoom am na ci ay soxna am na ci ay góor ñoo ñëpp ñu ngi leen di ñaanal suñu borom euh, boole leen ci dëkkandoo yi sëñ Tuubaa yi mu gën a gërëm ba tax ñu yaatal seen seen dëkkuwaay yi di jëmale ko ci ñi nga xam ne ay gan nañu te la ñuy def njëriñ rek moo cay bàyyi ko euh, fi may tëjee nag mooy ñi nga xam ne ñoo dimbali dimbali àdduna sépp bu ñëpp mën a dund li nga xam ne mooy ziar bi loolu nag média yi la ak site internet yi ak presse bi kenn desul ñëpp dañoo mobiliser wu kenn desul dafa mel ni suñu nekkoon di lim sax dañuy juum waaye xam nañ ne euh, nit ñi xam nañ ne euh, patrimoine boo xamante ne dafay un patrimoine commun ku ci ne yaa cay feeñal sa fulla xam ne lii de lu am njëriñ la te ñëpp ko bokk loolu nag feeñ na ci ni nga xam ne noonu lañ taxawoo ziar bi ñuy tëje nag di ñaan ci barkeb sëriñ tubaab mi nga xamante ne xam nañ ne euh, njëriñi kese la zanafin bi laa dararin ñu ngi ñaan ci darajaam ak ndimbalam ak bis bii nga xamante ne sëriñ bi nangul gim ñu nangul xam nañ ne mën naa yéwénal mbiri àdduna ak mbiri àllaaxira yal na yéwénal mbiri dongo yépp yéwénal mbiri bokki jullit yëpp ba àdduna sépp xam ne ndimbal lu bàyyi ko sëñ Touba àgg na ci ñëpp dimbali leen te may fàttali ne euh, sëñ Touba nekk na fii ci njaareem délégation bàyyi ko arabi Saoudite ñëw ñu nekk ci njàqare loo xam ne waa Madi waa Madinatul Munawara la leen dalal ak la leen dimbali ak la la faj seen aajo ku ne xam ne ne ci sëñ Touba mii la bàyyi ko kon moom moomee ñu ngi koy ñaan mu dalal xelu jullit ñi indi jàmm ci réew yi jullit ñi def xéewal ci ñi nga xam ne ñooy ñi ñi ñi taxawu lislaam te dalal li nga xamante ne mooy euh, ay ak lépp loo xamante ne coono la ci ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan Cheikh mun Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér te li mu yéene ci toolub Serigne Touba ak toolub lislaam mu def ci lu kawe njortam di ñaan nag ñu may ma rek ma tëjee xam ne murit amul àttandiku ziar bi jeex na nopp lu amul nelawi guddi ginnaaw bi fi sëriñ bi bàyyi ko la ko nit tal la sëñ Abdou Lahad waxoon waaye musu fee am saa su ne ñu ngi dukki dukki du woote nee na nangam jóg leen dem bu warab sàngam santaane na nangam guddeem du neen bëccëgam du neen ci si wenn waxtu ci senn saa ci li yàlla digle ak li yàlla santaane ak li yàlla bëgg koy def ndigalam nag mu ngi suñ kanam jóge nañ ci ziar bi nañu waajal màggal gi màggal gi li mu laaj ci wàccaay du loo xamante ne nga naan weer a ci des nga door a jóg du loo xam ne dañ naan ñaari weer a des nga door a jóg ba ñu génnee ci màggalug daaw lañ tàmbali wàccaay wi waaye dama bëgg nag ñu yokk vitesse bi di ñaan sëriñ bi defal ñu ci tawféex ba ñu màggal màggal goo xam ne mësuñu koo def bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam euh, ci barkeb Seexul Xaddim ak daraje Cheikh Mamadou mun taxaa wa rahmatullahi taala wa barakaatu. لو دهرني ياتي